li nga bëggoon a sama xol dafa bëri sarale sama xel dafa fonk ganale

maa ngi dafa dama la doon ñaanaa bis ma demee ba yàlla may ma jàmm doom bi bu dee góor. mu tuddee ko Philippe su dee jigéen mu tuddee ko Ndeye Philippe. Lalla Lalla Lalla. sa téléphone mi ngi sonné. Birane lan la loo may doyee. xamoo lan la. déedéet damaa bëgg a xam yow lan may woowee loolu laa bëgg a xam. d'accord Ba. Yo yow Birane ñoo dimbali. bés bu la rayee ngay xam ndax di nga am jàmm wala doo am jàmm yow. soo jógee naan ay dinaa leen rey dinaa leen def nii yow soo mënoon ci man dara jour ma kidnappé danga may la ndax wax nga ko Tafa ou pas mais ko may tamit. ah ok Tafa ngay wax Tafa soo mënoon ci yow xolal soo mënoon ci man dara def ko ko bu yàgg. yow yaay wax loolu mais Tafa du ko wax bu baax kan lu ñu digewul ci yàlla laa mënu ci moom dara même sama jàmm te bés bu ma dalee seen kaw yow ak sa famille ngeen doog a xam ne la. mais la. lan la kay waxal yaay sonal. man su ma balaa maa dégg muy woo téléphone di ñu menacé. Birane mën ñoo bàyyi may ñu jàmm lan la. yow Birane moo tax nga nekk fii di wax Birane nga xam ne ñëpp xam nañu ne wuyu la bandi la te wuyu nag kenn du sëq moom gis nga lii dangay dem nga wax ko Tafa Sarr. xam nga Birane sax kañ la génn. moom Birane rëcc prison bu yàgg. police Sénégal laa xamul ñoom ndax mooy seen liggéey ba ñuy bàyyi Birane muy tëral ci réew mi def lu ko neex bêtise bu ne mu def ko lii lan la xam nga lan la gis nga police Sénégal bëgg nañu def seen liggéey nu mu waree bëgg nañu seen liggéey trop waaye seen jumtuwaay moo matul te li xew si réew mi nag dafa bari mënuñu lijjanti lépp de am na si loo xam ne yaa koy lijjanti sa bopp demal nga wax ko tafaa Mira te yow mooy lan ngay plongé. wér bi neex naa leen. démb bi ma lay wax sama bopp bi day metti ay satu saab ma yóbbu clinique ba ci xale waaw di ma def loo test test la test grossesse <laughs> ma ne ko dara dalu ma wax ba sonn mu insisté ma ma def test bi mu positif. ah. <laughs> billahi. wax ko dafa. wax naa ko. ndi kontaan na. waaw ah, kontaan na. man démb rek loolu laa ko doon wax. billahi wallahi. loolu la. que mais man sama was wóoruma à cent pour cent aussi. que daal loolu laa sentir. <laughs> da wax rek. yow loolu nouvelle bu neex la de topp na topp na lool léegi nag kon xam nga lu ñuy def di ko xam nga bi ñu fi defee opération rein beeg yooyu xam nga yàggul mu nekk nii kon ëmb bi risque la ñuy demee su ma sañoon dañuy dem xooli benn spécialiste boo xam ne mbirum rein rek moo ko tax a jóg ñu suivre lay loolu moom bëgguma koo dégg ay nañ dem fii nañ dem ñu lay wax lu lay découragé loo moom franchement loolu moom bugguma ko bàyyi mag tafaa rek mu suivre man xeelu ma tafaa ci fajam de mais tafaa gynéco la du spécialiste ci affaire rek ah man boog loolu moo ma gënal xaw ma nag yow yaay wala bu ñu paree ñu waxtaan ci tafaa ba pare ah d'accord hmm? sa ah. nouvelle bu neex tey dama yàgg yàgg dama koy wax. Hmm? na lu ma ko pour man yow ak moom ñu toog ci waxtaan. sa waru ci nag. dama ko wax pour affaire dem xool spécialiste buy xool ay rab xam nga nii tamit ñuy jëlee ëmb nii ak opération bi ñu def te yàggul risque la de sa ci daal nee naa ko daal dinañ ci waxtaan Voilà. C'est

sama anak tangki. bi. tànk bi mu ngi tane. waaw mu ngi tane bu baax kay. yow lii métti na de. mais nii nii tuh. Tapi ini boo jugoon taw tuuti. amiin bëggoon mu wér anu mer sama yaay mu ngi kër ga. kër ga nga bu am re. dina ëmb ba am doom ah bëgg naa mucc ci sama ëmb bi ndax dafa bëgg naa bëgg koo xamante ni bëgg naa koo jural doom fokk ma góorgóorlu ba ëmb bi mën a sotti bés ba ma avorté <laughs> loolu moom dee sax moom ko gënal dul brand moo tax ma ñëw fi moo ma woo téléphone indil ma seytaane lu ma waxul dokaa fàtte biral ne koy wax di menace ay menace am yooyu comme moom bandi rey reye yow ram lu mu la waxul hmm. ma dafa di wax mom sama yaay mujj mu ne ma damal ci tafa nga wax mom mbiru biraar yo kese mu koo ko lijeenti lolu motax ma ñew fi dafa faté da bu ëppal de ñi hmm, ngeen kenn du ci wax kenn du ci def dara biraar du ci prison bu ba tay kenn mënul faxe ba wax ci nu ko nu mu delloowee mais kenn du ci wax bu ngeen melni da ngeen ragal biraar <laughs> ëpp na yow sank suba ma nga koy expliquer ndef ngir biraar bàyyi leen ko ci wax police dossier yooyu nañ ko réglé man su ma jugoon sama tànk bi léegi ma réglé ko léegi léegi du problème hmm? te loolu su ma la ko waxee war ngeen ma bëggatuma nag dégg ngeen wax waxu Birame man dinaa ko réglé une bonne fois pour tout. c'est vrai que tu as avoué que ni liñ lay toppee yëpp yow yaa def tu as escroqué cinq personnes tout de suite aussi maa ngi jot beneen plainte am na immigré bi nga xamante ni da nga signé woon ak moom que ni da ngeen di marié nga jël xaalisam yëpp ndekete da nga ko doon escroqué Merci beaucoup. Merci. tay dañ lay defeere so amul chance ni di nga yag trop ci kaso lan laa teg suñu stratégie bu graaw pour Birane mm-hmm. ndax nañu def ba piégé jaari Birane waruñoo mën a tëg normalement te Birane tant mu ngi nekk di circuler mm-hmm. muy yow di man di keneen ñu ñëpp kenn ci am ja am man Birane dama koo ragal ba nga xam ne su ma tëddee guddi ba sama xelam ci moom sax samay nelaw day dagg mm-hmm. léegi nag fi mu nekk nii comme que yow rek yaa mën a jot ci moom ndax yow lay nekk di la woo fu mu toll dama bëggoon nga woo ko téléphone melal ni comme si da nga bëgg a mokk ak moom ci jàmm. fexeel yow ba mu jox la rendez-vous fi mu la fu ngeen mu ngeen mën a tase yéen ñaar su ko defee ñu teg li ñuy teg. Hmm. waaw. waaye ndey woo moo fi solution bi. ndax police mënu ko teg bët. ah police amul fenn ko mën a gisee. kon ñun mën nañ am accès moom nañ ci dem rek. Ah, xam ma xam naa loolu mais yow lépp loo jàpp rek da koy bàyyi pour ñu mën am loolu. léegi man su ma ko woowee sax dama koy wax. yow wàccal nànk rek waxal ak moom nànk nii ko dangaa bëgg a gisanteeg moom pour ngeen toog ngeen waxtaan amicalement te kenn du këdd moroomam affaire yooyu. ko

foo nekk nii waaw léegi dama bëggoon nga doxal ma benn monsieur ok d'accord yow dëgg la amoo Birame su ma la ne dina woote rek dina woote waaye xam naa ne bu koy yàlla jéppee ba piège bi ñu koy tendre Birame dugg ci génn Hoşçakal. allo waaw non non non Birane ma man xulowuma rek xulowuma xoolal jàmm rek a tax may woote waaw sànq ni ma waxee yow c'est normal parce que yaa ma woo di ma menacer sama fam di ma wax lu nekk donc c'est normal ma ma defee noonu ak yow damay défendre sama bopp.

waaw dans 30 minutes maintenant. Hein. d'accord ok merci. tonight. yow demal technopole ba nga taxaw xaar ko su yegsee rek yow fexeel noo ma envoyé SMS ñëw ñëw su ko defee ci saa si man ma woo policier yi ñëw ñëw. mais def bi ma sañoon. Hmm. nga woo léegi police. lu parce que dinaan ay mbiram dafa lëj de. naa nga mënuma def loolu. xabaar li lañ ko seetal. su ñëwulee nag kon beneen yoon su ma leen woowaatee du ñu am confiance ci samay wax. bàyyi ba mu nekk sur rek man ma woo waaw day firi maa ngi toog boobu léegi mais gis nga de. ñëwagul. non non ñëwul. waaw mais nañu xaaral tuuti rek laal la duñu yàkkamti. ah waaw d'accord bàyyi ma ba ci kanam. Ah, de toute façon man am naa eh kuna jiao badugu kasofau. sofa picce moom boppam kenn xamul jabaram dugg naa ci yow no buntu akno gat